mën waa ku xam yoon waa ko gën daas bu nekk pexem waaye wasaare ba ngeen yuri ku du ba léegi làqu leen booba saakul tabaxoo ko mën na laa jafe wasaare TV xoolal bu baax saakul tabaxoo ko toj ko mën na laa jafe Wassare TV xoolal bu baax moo tax na kenn du leen tee da ngeen di dem ni naa leen macha allah da ngeen di dem kenn du leen tee da ngeen di dem ni naa leen macha allah da ngeen di dem ni naa leen macha allah da ngeen di dem acca ah, salaamaaleykum mbokku internet yi bàyyi xel seen seen bi di wasaare célébrité gannaaw ba ñu leen nuyoo ziyaare leen bu baax ñu amaat mbégte ak kontaante jàkkaarloowaat ak yéen comme ça su nekk nag ñu koy defee ci seen émission sama star nee naa leen duñu tàyyi di leen fëggal buntu ñi nga xamante ni ay ndaanaan lañ ay star lañu ci réew mi di leen ko indil tey nag nee naa leen surprise bu mag laa leen indil koo xam ne kenn dootu ko présenté Sénégal waaye nag damay ànd ak sama caméraman rek ñu daal di dugg si biir kër yi ndànk defal ko surprise xool ba xam naka la toogee ak naka lay bëgg bégalee sénégalais yi fas yéene seqal ak moom waxtaan nee naa leen ci li leen di bégal ndax yéen lañ fi nekkal seen mbégte mooy suñu yitte naana ngay ji di ma joobe si nañu ndaanaan di leen joobe di ma joobe ma bett di ko joobe comme ñun waa wasaare dañoo tàmm ay surprise ak sama gaay di ko xool ba xam ñu xool ba xam ki ñu seet ndax mu ngi fi waaw wala déet sama kameraman ibrahim ñëwoon Excel si biir kër gi daa mel ni fii la salaamaaleykum sama kameraman bi ñewal rek ñewal ñu xol ba xam kax ki ñu da melni mo tok ni mbay ziar nañ la mbay de borom combat bi borom victoire bu reuy bi mbay xalé bi nga xamné moy kor xalé jigen yi mbaya mbay mi nga xamné mo tey rew mi ñun ubbil suñu bop ñun dañoo yor suñu caabi bop fuñu dem fuñu ñu dañuy ubbil suñu bop kër ga dugg non limay def ni waral lañ ko jël tax waral lañ ko jël que li ngay def jubul non non li <coughs> pour dama son sama euh indi sama di enjoy comme nan nga da ngeen ma waroon a yeglu suma ma suma nekul wor lima la xam mm-hmm. da ngay te emission bi du ag non ñun nag dañu fi mu ne dañoo bëgg ay surprise ak suñuy suñuy suñuy nit. parce bi dama ne waruñu ko gis parce que li may def nii dama koy tere. jëlal ma mbay mi li muy def ma xool. ndax réew mi dañ koy tere. non non am na ñoo xamante ne. Euh, li euh, euh, wóorul daal lii. waaw man dama koy tere si télé bi. Ah. mais dama koy def nii parce que. dama sumay eh, ki war war ko jël dal war nga tagu war nga ma tagu ko buñ la tagu ñun ñew nañ ñew nañ ba paré ñun non war nga ma tagu parce que non war nga ma tagu parce que dañ la bête tay defal la surprise ñun xulowuñu non non wa wasare ki li bëgguma ko de ah ñun ñu ya, ñun tamit bëgg nañ li parce que dama jigé ci combat am sama victoire hein ah? waaw ak am sama victoire ma jox la benen micro bi waaw <laughs> waaw ki num tuddu sax ah, mbay nañ bàyyi xuloo beeg ay waroo maa fekk si nii ak ah ay ni nga ma fekkee nii ak man surprise daa la doon defal pour bégal ñi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan comme yow ci làmb nga jóge victoire nga am ah waroo di mer dangaa war a belli sa kanam daal di neex waaye danaa la bàyyi rek nga nuyoog mbokku internet yi nga xamante ni ñooy bàyyi xel seen bii di wasaare célébrité la taa que ñuy xuus dugg ci waxtaan bi. Ah, maa ngi nuyu wasaare. Mhm. waaw yéen lu ngeen tasaarewul baaxul. bu baax. waaw lu ngeen tasaarewul baaxul vraiment. Mhm. waaw am naa kontaan parce que man yow yàgg nañoo déggante. dëgg la loolu mais tey la. tey lañu waaw dama ne woon sax arrêté naa. émission génn parce que samay li may conseillé. Mhm. dañ ma ne arrêté génn parce que génn nga ñaari sorti mhm. baax na parce que léegi ay dama mentalité quoi. Mhm. Euh, je suis mentalité parce que ay kilifa ñoo a encadré. Mhm. ku mel ne Cheikh Sarr ku mel ne DJ Yves. Mhm. samay encadrement yu mag. Mhm. waaw ku mel ne Babacar Ndiak. ku mel ne Bamba Alizé. ñoom dañuy taxaw ak Samba Ken no Bonavita. dañuy dañ may. dañuy wax ak man comprendre que di mhm. ay kilifa yooyu yëpp dinañ ci ñëw waaye balaa ñoo dugg ci kilifa yi laa euh, comme nuyu nga ñi nga xamante ñooy seetaan site bi di wasaare ñu amoon mbégte ak kontaante dalal leen ci dalal ko ci émission bi nga xamante ne mooy sama star nee leen dañuy fëgg buntu kër ñi nga xamante ay star lan seeti leen euh, fas yéene leen nag tàllal suñu micro euh, seqal ak ñoom waxtaan bu yaatoo yaatu mbay dañuy doore rek ci combat xamante ni jóge nga ci muy sa diggante ki nga xamante ni moo di Pawlish Mbaye gis nañu yow la ñu jox li nga xamante ni moo di victoire bi te victoire bi gis nañu ki nga xam ne moo di Pawlish moom moo ko moom. non non lan moo tax loolu. xam nga yéen da ngeen da ngeen di jaxase quoi. jaxase victoire boobu victoire boobu c'est que victoire bu leer nañ la. c'est que xam nga wérul xam nga sooy sooy bëri koo xamante ne wérul dafa dof. Mhm. du koo xamante ne jaaykatu may la may ga la woon. kuy ba jaaykatu may ga Pawlish. waaw Pikine la nekkoon di jaay may ga. Mhm. waaw koo xamante ne Pawlish am na maa teg ay stratégie pour daan ko moo xam loolu parce que damaa dama koo yoole parce que damaa toog ci intervenir dama koy dawloo. Mhm. boobu parce que dafa dafa dafa kii dafa dafa dafa am feebar bi feebar buy bi nga xam ne gaaw sonn feebar bi nu mu tudd. moo tax gisoo football am suñuy football ak moo ñoom ak waale ay 10 mhm. minutes lay football. daa dafa dafa non non feebaru xol la. feebaru amee. waaw kii dafa genre cancer cancer la non cancer dafa cancer. Mhm. day gaaw a sonn. Mhm. waaw dafa dafa sunu ba pare dafa sunu mais Mbaye dama gis yow li ngay limal Pawlish ci ay feebar bari na torop parce que gis naa la ci benn interview nga ne Pawlish maanaam euh, noonu la borom kii yi la. Mm-hmm. yaa ko wax seen télé boobu toog nga toog si wax si pawlis nag démb yàlla dogal na ne ñun waa wasaare comme du ñu def seeti kii bàyyi kii dem nañu këram. su ma xamoon ne foofu ngeen jógee du ngeen fi ñëw. waaw parce que parce que man micro bu mu laal man bëgg a ah, na micro bii de. ba pare démb déglul wax ji wax ju nga xamante ni Pawlish wax na la ko nee na keroog ci làmb ji yow mbay danga ko moy parce que daf laa naroon dóor ba ndamu la mm. yóbbu la Guinée. waaye comme mooy nga rey beeg yooyu yëpp jotu cee am moo tax mu dóor la ba blessé la nee na moom arbitre bi bu muy soufflé nee na ko bërë bi amul bërë dóor waaye moom moo def exprès pour bërë dóor la parce que moom da da maanaam da la mere ci li nga ko waxoon noonu. non xam nga Pawlish moom sax woon bëri parce que man sax maa ko fa parce que dañ ne parce que moom jaayul combat bi. jaayul combat bi man maa jaay combat bi yëpp man maa def marketing yëpp moom dafa toog rek. Mm. comprendre nga loolu alal boobu lewul. Mm. moom li mu njëkk def lewul. te te te te barki alxuraan karim préparé wul combat xam nga kañ la ñëw 18h. non moom moom nee na heure boobu. non non 20h la ñëw. moom moom mujjee ñëw wax naa ko de man. Mm-hmm. xam nga kañ laa ñëw. 17 mm. pour am confiance. parce moom sax dafa wérul parce que instant boobu man damaa ragal man da doon daw instant boobu damaa sedd 40 ans. buntuma dafa waroon jàpp def jàq ji ma dàq ji ma kaani la andi. kaani ci làmb kuy wër dof. ak ak ak yambar ak mën a bette ak ak ak ak ak ak ak vagabond ak ak ñàkk personnalité ak ak ñàkk personnalité ak kii kii non kooku kooku kooku du du nit parce que alxuraan ñëw indi kaal yi kaal yi. moom bokkul ci làmb. waaw waaw léegi ragal la dafa ragal. barki yàlla barki bokkotaan yi nga <laughs> xii di. lu ne si bokkotaan yi nga xam ne xul xul ak yooyu. pour xasaw xun xun xun xun Pawlish oh. Pawlish am xet loolu la daan. Pawlish Pawlish xet bi musuma moo tax dañ ma ne wutal si saa pour ngay si saa pour heure bi di génn parce que sama xel doon tey boobu bi billaay kër gi yëpp war ci war ci naa ko <laughs> mais tey mais Pawlish dafa mel ne est-ce que Pawlish dafa yooyu xam am na ñoo xam làkk yàlla ma yàlla baal mais Pawlish billaay wallaay du nit nan ngay ma laaj la. kan mooy lan moo tax muy indi kaani. est-ce que nekkul moom tamit kaani dafa bokkoon ci ci loo xam ne ay cumbukaayam la woon. lan moo tax moo koy xëpp. ah yow yow yow yaay adversaire am yow la war a bëgg. déedéet eh, déedéet man defuma loolu muy def loolu. ah man xëpp ma kaa kaani muy mooy xëpp kaani. billaay xaani kaani la ma xëpp kaani. kaani la mu xëpp ba pare kaani bi mu ko xëpp maa ngi dem di signaler ji ne ko. Ah. ne arbitre këpp na ma kaane mais arbitre dafa teg ne komedi, comédie dafay def affaire comédie waaw kay comprendre nga benn instant dem naa si arbitre bi def nii su ngeen xoolee image yi mm. def naa ni nii daf ma am lu mu xëpp arbitre bi ne waa garaawul comprendre nga mm. li may woon arbitre bi noonu nekkati mi ngi sama ginnaaw pour xam nga li ma la mm-hmm. non non parce que yow koo ragal dina dem ba dama dem ba jege ko nii nii pour parce que ar ngeen jàkkaarloo face à face daal yëf yëfu yëfu jàntal mi kay mais kaani lan lay kaani ba pare <laughs> nii nii baa bu mu yëkkatee bi mu yëkkatee dafa xoolal billaahi wala façon xet bu nekk Pawlish xee Pawlish xet na ma xetu dute xeej ah Pawlish xetu fuddan Pawlish xetu goo goowee sax tane na xetu fuddan bi xaw moo ma doon bëgg rek ak xetu xetu dute lépp bi xet yooyu yëpp ci lan <laughs> xam nga su doon sango su sangoo tak saafara sax ma ne saafara bi la moo xeeñ mm. bi Pawlish sangool saafara sama saafara la ma yéen bokk saafara ñoo bokk saafara mm-hmm. ma ñëw yëngal stade bi stade bi yëpp di kii woykat bi wooy ma lu neex. waaw gis naa wooy ma tarkindaa yi booy si tey ñëpp. Mhm. ñoom 6000. yëngal stade bi booy tarkindaa yëpp maa ngi leen di siyaare. Mhm. ñëpp man lañu faral ma am peuple indi ko peuple non man man man. mais nit ki man mais euh, de euh, daanu de parce que dafa tooñ. parce que dafa maa ëpp xamukaale ba pare du coup de xam nga la kaani bi kaani bi la ma këpp nii parce que alxuraan karim xoolaat la l'image billaahi kaani bi la ma dóor nii billaahi wallaahi taalaahi dafa ma kaa njëkk a xëpp kii waat ma te ma arrière mais euh, yow nee la man dañ ma ne. am amul dóore. comme amul mbeje amul dara. comprendre nga. comprendre nga léegi def nañ ma loolu wax nañ ma loolu kay damay damay dama naan ah kon garaawul xaaral ma ma bëreeg moom xam na la. Mm. dama ko noonu kii ba mu sonn. mu ñëw maanaam da nga ko naroon na bàcc bàccee ba mu sonn mu ñëw daal parce que dafa dafa dafa dafa kii dafa moom dafa kii dafa genre estament dafa. maanaam du sonn daal. noonu non dañuy gaaw a sonn. police man man mandat sama non sama sama affaire police je je détesté je détesté détesté barke alcorane karim je détesté je détesté police je te détesté wourna détesté non je détesté d'accord je détesté police mhm. parce que comportement zéro à ah, foule zéro de zéro di menacer arbitre yi di saaga arbitre ah di saaga naan ay sa ma sa yaay laay bëri ay. mais moom nee na li tax mu wax loolu lépp parce que dafa xew. non non ba xew waay yow moom moo ko wax. waay bàyyi ma xew kër Pawlish presque fa lañ dem ne nee na moom euh, li nga xamante ni moom heure bi nga xam ne waroon na ko ñëw ñëw ko moom moom moo ko tey parce que moom moo nekk xale bi nga xamante ni moo xew ci jamono kon moom la ñu war a taxaw di xaar. kon yow yaa ko war a taxaw di xaar. non non taxaw ma xaar ko parce que contrat jàmbur la. moom moo dof ba signé ko. comprendre nga dafa war respecter heure bi respecter kii man naru woon dem parce fu mu nekk nii sama gàllaaj sax dafa tojoon parce que ndoxu taw dafa dañ ne sëriñ bi dañ ne ndoxu taw day toj sa gàllaaj. kon loolu la daan. moo tax non daanu moom dafa ma dóor. waaw dóor boobu tamit. ba non suñu suñu waxoon suñu ma waxoon man damaa topp règlement comprendre règlement bi laa topp parce dama ko dama doon taxaw xeex ak moom parce que bu xëpp ma kaani kaani bi kay moo tax mu xam nga la mayoon naa waxoon naa bi ne ko ne ko doo ma may tuuti ma rax sa mbët bi tuuti ñu ne waa CNG dañoo yàqamte parce que mais mais tey est-ce que Pawlish bi muy dugg si si si si làmb ji maanaam bi ngeen ba xam ndax kii rataxul wala kii yorul am lu mu loortu. loxo mag non non xool xool parce que affaire parax parax lañ ko def la def. sàcc dëgg-dëgg sàcc dëgg-dëgg mooy mooy Pawlish sàcc kay téléphone sonal mooy Pawlish. billaay walaay dégg naa da doon sàcc téléphone mais barki Rasuul alxuraan karim mu doon sàcc téléphone. waaye Pikine sàcc la fa woon. bi mu nii nii mu nekk Pawlish nii wala bi avant moo nekk Pawlish. waaye yow bu nii nii day sàcc waaye doo bàyyi Pawlish. sàcc bi mos na laa sàcc yow. non non dama ko gis yenn saa am ay xale jigéen dañu may woo ma. Ah. sàcc la xawala la nan lan moo tax at bi gisuñu kaani bi man loolu moo ma jaaxal kaani bi ba gisuñu ko. mais xale ah? la wax Pawlish ñëw na fa par sa téléphone lan lan la fa Pawlish doon def. may daw na dew maa daan bay ba woon ko vidéo yi. wax na dëgg. ah c'est normal loolu loolu ba pare xam nga te kañ laa ko nar a tey tey xam nga tey lañ ma war a jox tey a jox sa drapeau tey lañ ma war a jox barki alxuraanul karim léegi fi mu nekk nii dina sa teew moom Pawlish dina sa ñëw barki alxuraanul karim billaahi wallaahi tàllaahi man yàlla rek laa bëgg yàlla rek laa respecté mais Pawlish tey su ñëwee foofu dama koy rey dama koy humilier barki alxuraan ka ma koy rey na ñëw tey ma rey ko barki alxuraan ka su ma jegee parce que kii bi lamb ji am drapeau bi man maa ko moom. suñu ñëw jox drapeau kay. ak sama mbakkus. Mhm. comprendre nga moom yoonam nekku si. yoonam nekku si mais attention ci mbay ci Pawlish aussi parce que euh, da nga ne da nga koy toroxal mais na la fi ñaar yoon benn ci lamb ji benn bi fi nga xamante ne fa sa télé bi ngay liggéeyee dóor na la fa ku ba nga ne woon da nga koy porter plainte gis naa tamit ci sa nga ne da ngay yóbbu mbay euh, ki nga Pawlish si yoon parce que warul laa door ci lamb ji. Mm. loolu bokkutoon ci lamb ji. non non bokkul parce que waruma dóor parce que xam la Pawlish si boppam. dóoram yëpp dóoru bette ay bette la man man comprendre ma xoolal télé ba keroog xam nga lan la. Mhm. xam nga lan moo tax ma jël combat parce que parce que yi waa Thiès laa ko jëloon ak Dame Sène. Mhm. billaay Dame Sène dafa sonn si moom bi billaay Dame Sène États-Unis yëpp ay ñoom Bosnia ñoom ñëpp. Mhm. ay ñoom Griff Sougou ñoom ñëpp ñëpp ñëpp dañ maa kilifa yëpp man la joxoon bopp. ñoom lañ joxoon xam nga loolu nag la xam. moo tax mu ne tey naa ko jaxasee àdduna bi xoolal. xëpp mag man kaani bi jooy sax def naa ko. billaahi damaa jooy damaa jooy keroog bi ma bi d' accord jooy nga keroog jooyaat nga <laughs> parce que dégg naa ne bi bi bi mu la dooree seen télé bi yow bi nga demee eh, sa yaay xaw ma ban baat la la wax baat boobu def la jooyloo. waaw sama yaay dani ma. man ah. juruma ko ñuy dóor. dëgg la lan moo tax ñu lay dóor. Mhm. comprendre nga moo tax ma mhm. jooy. sama mhm. yaay parce que mu ne ma dañ laa bett. suñ la bettul woon duñ la mën xam na ma man xam na ma. man xam na bëri laay Pawlish oh ba pare jox naa ko fi rendez yu bëri foo xamante ne téléphone du tàq dara du tàq mu daw. moom Pawlish ba pare bi ñu nee suba la làmb bi. ñoo naa ba mm. këram sotti fa ay gàllaaj. gisu la. lu tax wàccul ma taxaw 10 minutes 20 minutes yoo xamante ne wàccul. Hmm, kon d'accord est-ce que pare nga pour jëlaat Pawlish parce que moom. nee nii nii dañuy. Gaston Mbengue incha allah mi ngi waxtaan ak ñun te soo moytuwul dama su ma fayee fukki dërëm sax dama koy jël. non instant yii yeneen combat la ñuy waaj. dinañ ci ñëw ci kanam non non Gaston su ma ko dama koy pour. toroxal comme si non non non xam nga la comme c'est léegi découvrir naa saay saayam découvrir naa. da nga a xam li mu capable waaw dama ko yéex xam parce que fréquenté ko te soxla soxla wu ma ko fréquenté ba pare soxla wu ma fréquenté ay ay encourage am mm-hmm. man maa Pawlish bokkuñu yoon man nii laa def moom mu def nee comprendre nga mm-hmm. xaw ma ku ko xam ah miinu ma ku ko xam comprendre nga moo tax su ma doon am su doon moom li ma informé xam nga la mm-hmm. di di di di di jege samay nit moom xam nga la combat bi samay nit rek la doon ñëw di di waxtaan parce que moo la ëpp xel non non samay nit rek yenn saa yi damay ñëw benn benn ki ñu ne Pawlish léegi la fa jóge <laughs> barke alxuraan karim te Pawlish salté la salté boo xamante ne. oh nga def boo xam ne Pawlish salté. non non Pawlish dafa salté man pokotaanam yooyu mu xam ne pokotaan li mu na ma. billaay wallaay taal nañ jaaxal si leneen waaye en tout cas tey xam lan laay wax dama ne Pawlish. nga damaa dégg si ñu ne. Mhm. Pawlish dañ may jox drapeau bi tey. waaw xam nga mu ne mhm. dina fa ñëw nangu na le moo la ëpp doole tamit. moo ne la moo tax muy nangu drapeau bi. est-ce que nekkul moom moo la daan. non non non lan mo di yow CNG jël jël foqati drapeau jox ma ko mu ne man non c'est c'est c'est qui ah mom moy kan. wa legui dama bëgg nga. Ah? lancer ko message ci français mom mu baña a fi nga xamanteni moy non non man man ko lancer barki Rasulullah billahi je suis prêt pour pour pour pour pour pour pour pour euh, pour humilier euh, euh, paulis tay mhm. je billahi je te le jure dina ko humilier tay billahi wallahi tay d'accord comme c'est loolu rek la bëgg tey dinaa ko humilier parce que wër naa jàmm ba sonn gars yi samay kilifa woon nañ ma ne ma yàq yàgg Pawlish yéen a bokk ay mbokk yéen a bokk ay xarit. comprendre nga bëgg nañ sa jàmm yaram. comprendre non non. Mhm. Oh, bu ma jooyloo. wallaay jooyloo ma la li am rek laa parce que gis naa ñaari yoon Pawlish humilier la dóor na la fi. ah dóoraat la si làmb ji ba dàq la man kat wax dëgg fa yàlla li ba gis rek laa wax de kii say kilifa dañoo bëgg sa jàmm yaram. wuyu ma ah. te Pawlish aw ma lenn lu muy wax moom. Mhm. xaalis moom xam nga dama ne woon du ko boole mais naa ko boole. waaw boole ko ma dégg. bi si xale yi jigéen yooyu ñu mandé ñu ñu mandé noonu. mooy doom bi. volet mm. volet bi. waaw billaay Pawlish da koy jaay. ah billaay day jaay volet. billaay wallaay taalaay. man la koy jaay da koy jaay. parce que yow gisoo fan yii yëpp li mu wax boole si volet fekk si da koy publicité day publicité ak de Gàmbi lay dem billaay wallaay taalaay. Fawzi chaque sam rek dimanche mi ngi gambi am na ci preuve pour ñu leer mi ngi jaay volé billahi wallahi day jaay volé fa la koy jaay fi ci moy jaay xalé jigéen ñi volet yow bi nga démé fekk fa ay jigéen. gisuma ko de. Hmm, waaw parce que da nga day na billahi mais ni ni ni so laqato ni ni ni hmm. billahi nga dem saa nga woo fa ay jigéen nga fa fekk ñu ran kërëm volé lay jaay. parce que yow ben xalé bu jigéen bo xamné ne dafa ñew ci yow la paralyse da ko jaay volé waaw billahi day jaay volé sama xarit yu bari da len jaay volé volé bi ñaata lay jaay non non man bëgguma koo xam ne mais day jaay volet. xale yu jigéen yooyu waxul lañ prix bi ñaata. billaay day jaay volet xoolal chaque samedi ak dimanche mi ngi gàmm di jaay volet. Mm. billaahi léegi cooytuwa Pawlish tamit ba xam volet bi fu koy jëlee soxla ma ko Gambie la Gambie lay dem chaque samedi ak dimanche mi ngi jaay volet parce que mi ngi leen koy publicité chaque jour mi ngi koy publicité chaque jour mi ngi mi ngi mi ngi communiqué si volet chaque jour chaque ngi communiqué si volet léegi nag su communiqué si volet ah nit ñi dañ koy wone ko ñoo def ba xam ko mu ne da nga ko bëgg a mos kaay ma mosal la ko am na xale yu jigéen ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi Dakar xamuñu volet Pawlish Dakar de Pawlish moo yàq jeune bi jeunes yi jeunes yëpp Sénégal yëpp Dakar yëpp Pawlish moo leen kii volé. moo leen jaay volé te Gàmbi la koy wutee. d'accord mbay li ngay wax nii. dama ne woon duma ko boole mais billaay wallaay tallaay damaa mer ci loolu. billaay wallaay tallaay. da ngaa ci jaay bi muy jaay volé bi wala da ngaa. Pawlish humilier bi day humilier non non Pawlish xale la mën naa dem liggéeyi. mais lan moo tax liggéeyul di jaay ay Ah, loo xamante ne nguur am nga ci preuve moo tax xëy na nga wax ko. loo xamante ne état da koy tere. nguur da koy tere police li nguur di lépp lay def. li nguur di tere lépp lay def. à part jaay volet bi lan def leen. police barke alxuraan kay police li di def. li nguur di lépp lépp lépp police da koy def. ah jarul jooy nag may tamit nag. jarul jooy ba pare moom mooy bëgg a toroxal. daf laa ndakk di toroxal nag wax dëgg fa yàlla. lan moo tax Pawlish di jaay lu nguur di tere di soxloo booy yi di dem ba Gàmbi di di jël fële man ma teg sama bët waa Gàmbi ñu wax ma ko noppil wax dëgg fa yàlla Pawlish yàgg na di toroxal ci làmb ji non toroxale de toroxuma de toroxuma tey laa ko nar a rey billaahi tey laa ko nar a rey tey laa ko nar a rey billaahi wallaahi taalaa ay mbokkam nañ ko téye parce que yaayam mbuur la dëkk sama yaay mbuur la dëkk bëgguma koo toroxal mais Pawlish na ma bañ a moytu na ma tey su si combat bi tey su ñëwee fi ñu may joxee drapeau bi billaahi dama koy rey billaahi dama koy rey li tax lii si saa mosuma koo def mais dama koy def tey pour dëgëral sama xol nañ jàll si leneen bëggatuma déglu Pawlish. bëggatuma koo dégg bëggatuma koo dégg. mais Pawlish doo ñu wax balaa ngaa tëj. non bëggatuma koo dégg bëggatuma koo dégg day jaay volé bëggatuma koo dégg bëggatuma koo dégg bëggatuma koo dégg ay waxu dégg Pawlish bëggatuma koo dégg waa baax na comme ñun deli woon nañ Pawlish xam naa ne bu disponible fan yi ñun am ñoom disponible nañ chaque jour boo ñu woowee rek dinañ ñëw jël la nga tontu ci li mbay wax ndax nee na dangay jaay volet jigéen yi nga xamante ni xam nañu ko yow ko xamal ba moom sax tuur na ci ay xéewal nee na li tax ngay jaay li nga xamante ni nguur gi def koy tere ñun nag disponible nañ boo ñu woowee dinañ ñëw ba sa kër nga indi ci loolu ay leeral euh, kii mbay jarul ay joor xam naa ne sa xol tooy na lool waaye tamit naanal ci ndox mu sedd mi rek yow tamit ñu jàll ci leen ci beneen sujet waaw naanal ci ndox mi dolli ah déedéet bul tuuru bul tuuru bul da kii da ngay tooyal photo yi Pawlish nag tàngal na sa yaram xam naa ne tey moom fee fee dina tàng man moom xam naa ne di moom bu may wàcc fii damay dem changé wu rek daal di dem foofu seetaani drapeau bi ni ñu ko koy joxee Pawlish ak yooyu mbay ñu dugg si question kii uh, mariage ki nga xamante ni moo di Nabou Dash fan yu coow li bari woon na ci lool ñu gis ne fi mu nekk nii bii mooy juróomeelu mariage am xale jigéen ñi nag puusuñu paasuñu lan nga jàpp ne moom mooy secret Nabou Dash boo nga xam ne xale jigéen ñi amuñu jigéen ñi mm-hmm. moo dara euh, loolu daf may daf may xale jigéen naw da leen bëgg a dofloo. ci lan. naw da leen bëgg a dofloo laa defe ne. naw daas day ci théâtre parce jëkkëram sama xarit la. kilifa la jëkkër ji. jëkkër jan ji ne nii nii wala jéen ju njëkk. bee sama xarit la. monsieur Fall xaw ma sama xarit la. Mhm. xaritu koo xamante ne ay président Macky Sall lay toogal. Mhm. koo xamante ne ministre lay ay ay ay lay waxtaanal. Mhm. fu ne mu dem fa. kooku sox li mu ko dugal si Nabou Daas Nabou Daas sax da ko rëccu. moom jëkkër ji moo ko wax wala yow yaa ko. man maa ko wax da ko rëccu parce que kooku gis naa dem naa ba ko découvrir ay moyens mhm. dem naa ba découvrir fu mentalam toll. Mhm. kooku état wa ko soxla. Mhm. comprendre nga. kooku maanaam ay Nabou Daas yi ah, bëgguma sax jaar si turam parce que xawma ko comprendre nga. man jëkkër ji mooy sama xarit. daf may waaw Moussa Fall sama xarit la comme ça ay leeral balaa ñu yaakaar ne jëkkër ju bees. waaw jëkkër Moussa Fall sama xarit la. Mm-hmm. dañuy waxtaan di yaatal comprendre nga. Mm-hmm. mais man sama sama sama li ma jaaxal ba jaaxal. mooy lan sëy bi est-ce que dëgg la loolu la war a lijjanti. maanaam sëy bi nii nii ma mm-hmm, man gëmuma ko. mais sëy bi bu nekkutoon dëgg est-ce que jëkkëram bi dina ñëw def ay photo def ay vidéo ñu zongé def seen seen seen mariage ba mu neex comme ni mu war a. xam nga xam nga ay gars yi attanuñu dara c'est que buzz. da buzz defe o dafay waaj daf loo sénégalais yi buzz. buzz buzz di daf la commencé dafa o ne feebar bu bees la. feebar bu bees la non feebar bu bees buzz feebar bu é, la. lan buzz feebar bu bees la parce que parce que da ngay gis loo xamante é, gars yi dañuy fen rek dañuy fen dëkk boo é, ne fen fen. mais marié naa marié wu ma é, kenn du ci fen. non non yaa ngi fi é, ngi si kanam après di ngeen ma woowaat ne ma mbay di ngeen ma jël si waat. ñu mbay dëgg bu fekkee danga am ay preuve. non uma preuve de uma preuve. Nabou Dash marié wul da nga koy wax. non non uma preuve parce que damaa xam bëgg ñu ma bëgg Moussa Fall te Moussa Fall bëggul loolu laa xam da ko bëgg lii yëpp da koy naqaral lii rek mais Nabou Dash xoolal xoolal billaay wallaay taalaay xoolal Moussa Fall faalewul sax. faalewul sax keneen ku dul Nabou Daas. faalewul mais Nabou Daas nee na monsieur Fall ko doon topp. am na non non déedéet déedéet nii nii nii moo koy topp nii nii ba tey mi ngi koy topp. ah am na jëkkër de. bul fàtte nii mais man gëw ma gëw ma sëy bi de gëw ma ko. gëmoo sëyu Nabou Daas bi. gëw ma ko de bu bees bi nii nii. gëw ma ko di ngeen ñëwaat ci man. mais mais tey danga dama dégg ci say biiri wax sànq nga ne nabu mooy topp jëkkër ji léegi yow mbay hmm. monsieur Fall da la nabu da koy topp wala monsieur Fall da la woon ay preuve yoo xamante ne nabu moo koy topp non non parce que li ma gisee nabu euh, kii jëkkër ji bëggul sax génn télé waaw bëggul sax génn bëggul sax sinap man dama koy sinap sax may day bañ hmm. kilifa la kooku kilifa bu mag a mag mag la si Sénégal hmm. kooku kilifa la comprendre que man balaa ma kaa jot sax téléphone sax damay am problème dama koy soxla mais bala ma kaa jox am na kilifa yu bëri ñoo xamante ne ah moom du wax sax ay man damaa xamul sax lan moo tax mu tax Nabou Daas man loolu moo ma jaaxal lan moo tax. mu Nabou Daas jigéen la. <laughs> am na lépp loo xamante ni jigéen da ko war a am. kon instant yi góor bu ko gisee bëgg ko takku ko loolu dara nekku ci mbay. lii Moussa Fall Moussa Fall caractère am ak xaar ak xarañ bi nekk si moom ba xam koo xamante ne ay président da koy da koy woo ne ko soxla naa la mu ñëw. ñu toog ñu ànd voyage kooku kooku daa xaj ay Nabou Dash mii. mais Nabou Dash tamit wax dëgg fa yàlla jigéen la. te mel na ni mu war a mel war a ñam tamit góor bu ko gis bu fekkee ndox nga ko nga takk ko ku dul monsieur Fall sax. mën nga ko non monsieur Fall da gis ay kilifa sax ay Nabou Dash gis nga monsieur Fall fi mu nekk nii ki xam nga kan la gën a bëgg sax aaw bi. muy aaw bi waaw parce que aaw bi feeñul si ay réseaux sociaux deful dara. yow yow yow na yow koo xamante ne ci internet rek looy wax ci internet nga koy waxee looy wax ci système nga koy waxee mu siiw ah loolu loolu loolu lu baax la. internet fi mu nekk nii moom moom réew mi yëpp. non non déedéet moo la moom moo la moom keneen moom moom keneen am na ñu si bëri ñoo xamante ne lu ñuy def si internet bi la koy defee. mais am na jéeg yoo xamante ne ñu ngi si seen biir kër di sëy ak kumpa kenn du leen gis kenn du leen dégg. Moussa Fall mooy ma ma kii ko dafa juum. bi muy takk Nabou su nekkee woon xam xam naa ko dama naa ko ko takk parce que yow da ngaa effacé boobu xamante wu ko ah, dama dama woon ci mariage Nabou Dash bi mm, man xaw man man Nabou Dash xam yàggul di fan yi si laa ko xam man xam naa jëkkër ji lu yàgg mais xaw ma woon ne sax mooy jëkkër Nabou Dash parce que dama jékki-jékki ñu naan ma ki nga tax ki ngay taxawal kooku mooy jëkkër man kan mooy Nabou Dash ñu ne ma ñu génnee ma ay ay image am ma ne ah ok man xaw ma ko man naa toog su suba ba jant soo duma xam lu géej di mm. man parce que heure bi laay guddi ngoon laay yeewu su ma yeewoo ngoon xool ñi ma amoon njëriñ woo leen ñu ñu waxtaan xam nga ma am kii nekk sama guddi ma liggéey. Mm. xaw ma lu bëri yóbbu lu bëri. d'accord tey nan nga jàpp ne moom mooy secret Nabou Dash boo xamante ni yeneen xale yu jigéen ñi amuñ ko parce que Nabou Dash fi mu nekk nii mariage am yi bëri na. Mm. te xale jigéen ñi am na ñoo xamante ne ñu ngi fi toog mel ni ki ma àndal nii ci roq bi. far yu jar sax amuñu ko. non non c'est que soo xamee jëkk bi bu leen ci yaakaar ni sëy yu bëri dëgg la du bu dëgg. sëy yu la may dañ lay may cinq mille di di deux cent mille. Mhm. wax ci internet bi ne cinq euh, deux millions lañ la may. léegi dañuy jaxase dañuy def loo xale yi jigéen dañuy loo xale yi jigéen dañ leen def loo xale am na ñoo xam ne sax jigéen ñoo xam sax ñooy joxe. Mhm. ñoo ñooy dajale comprendre nga pour joxe ko. Mhm. ni sa jëkkër moo leen ko may. te billaay wallaay taa jëkkër ji seen jëkkër mayu leen dara. dañuy def loo non dañuy def dañuy non non dañuy def non non damaa xam lu bëri man man ma xam eh, nga. waaw moo man xam naa ne da ngaa xam lu bëri moo tax ma laaj la ma laaj la li ma la laaj noonu. parce que mais xam nga wax lépp xam lépp baaxul soo yàggee ya, dañ lay kar te man bëgguma ko kar comprendre hmm. nga. mais dama leen jox leçon rek xale jigéen yi gën leen a fagaru. Hmm. Ah, te seen sen, sen, awra ngeen ngeen téye ko. waaw parce que dina jar leneen lu dul loolu. comprendre nga dina jar ay million parce que ji góor nii su lay doxaan soo ko joxul mu mu soo su nàmpul nii mën na laa barki. waaw su góor taxawal góor su soo soo soo nekkee góor nii. Mm. ah mu lay may un mu may la 500000 bu bëgg a nàmp nàmpul suba 1 million la lay may pour nàmp su nàmpul gannaaw suba 2 millions la lay may pour nàmp su nàmpul da lay takk soo la takkee nag da lay jaral. waaw comprends nga mais su la un million wala mu dig la Dubaay. maanaam li ñu naan góor lépp. waaw maanaam dafa bëgg kumpa. maanaam lépp loo xamante ne da ko ëmb ko rek. léegi dina dina def le tour pour découvrir lan la. mais su nampee. kon comprendre su nampee day daw góor suy namp di daw. góor daw ah suy góor namp daw man li koy dàq laa xamul yow yow yow. parce que day namp li mu kay day daw ah c'est vrai man mii sax su ma damay daw. doolaay ji bur bi xam nga kii la nax la nax la naan naa la tax naa la kii def ba nàmp la may la nag 500000 ah rek daw doo ko doog jotati. doo ko gisati doo ko parce que tey kii moo tax exemple bu ma leen di jox billaay. joxe bàyyi leen di joxe ñu billaay suy ku ñu di daw. bu bu leen kii bañ leen bañ leen am na góor ñoo dañoo feebar. billaay dañoo direct. maanaam loolu rek kay seen seen seen. surtout ñu am xaalis ñi dañoo feebar. ñi am xaalis Sénégal dañoo feebar duñu may góor. duñ góor moom duñ ko may. jigéen la ñuy may jigéen rek la ñuy may. <laughs> li tax <laughs> ñu leen di may xam nañ ko. waaw yow man mën naa présenté man damay jël sama damay jël man sama benn xarit. Mhm. présenté ko benn xale bu jigéen xale bu jigéen dañuy yóbbu fari pari man ñu bàyyi ma fi. dëgg la <laughs> xoolal man da ngay gis ko man ma ànd ak benn xale bu jigéen ñu ñaan ma ko ma maye ko. Mhm. présenté leen ko fi ñuy gisante ay pari lañu gisante di leen may ay 200 di leen jëndal ay tele man moom ñu bàyyi ma fi. billaahi dañoo bëgg mënuñu si góor dara dara. daal ñi nga xamante dañuy marié si li nga xamante ne moo di internet bi ñu leen di jox ay 2 millions ay 3 millions ay. par xaraam loolu lépp. xaraam da nga bëgg a wax ne loolu lépp. xaraam xaraam du dëgg de du dëgg de. loolu lépp du lu am daal. ay du ay fóor d'accord kon yan message ngay lancé si xale yu jigéen ñi nga xamante ne nii. dama ne ñeneen ak ñeneen teg nañu seen bët ci li nga xam ne moo di sëy sëy li am xale jigéen bu mën a jaay ndox jaayal ndox xale bu jigéen bu leen complexé parce que su ngeen di jaay xanaa xamoo xale jigéen su tilimee su tilimee mel ne xoola su sangoo ay daal di génn sax tirimal góor da lay bëgg force góor dañoo feebar ñoom l'essentiel góor dañoo feebar dañ leen di bëgg xoolal bu leen complexité si dara. jaay leen guro man man man Mbaye Nabou Dash laa la laaj nga indi fi histoire yooyu yëpp xanaa yow da ngaa mos a joteeg Nabou Dash da ngeen a mos a am problème wala jëkkër ji daf laa wax ci moom leen loo xamante ne ñun xamuñu ko. c'est que damay wax xale yi écoute yi nga yi ma dégg si jëkkër dafa bëri faux information la. ci jëkkër jan ju bees yi nii. non non mu Fall Moussa Fall xam nga. waaw énergie ay nga. dañ daan dégg dañ daan dégg naan ñu naan na dañ daan dégg ñu naan Nabou Dash moo ko financé te du mm-hmm. dëgg. loolu ah, du dëgg waaw dañ daan gis bureau bi Nabou Dash moo ko financé. Mm-hmm. moo moo jënd matériel yi te du dëgg. Mm-hmm. xam nga li ma la wax Nabou Dash bi muy kii Moussa Fall bi muy am xaalis boobu Nabou Dash xamu ko comprendre nga. xamante wuñu mu nag Moussa Fall c'est mu ko diiñ ci Sénégal am na ñoo xamante te suy du projecteur. Moustapha du projecteur am na projecteur euh, bëgg nañ chaque jour ñu leen naan yaay directeur yaay directeur ci di xool bëgg sax koy wax directeur maanaam kon kooku kooku kilifa la. Mm. comprendre nga suñu koy waxal lu dul dëgg dama koy leeral. waaw kooku dafa am xaalis balaa nag. moo tax moom du génn leeral. waaw coow muy bëri bëri kenn gisu ko mu génn. sama xarit la moom moo ci nekk di wax comme yow sa xarit. waaw sama jege nga ko nga mën cee indi ay. leeral sama xarit la du génn parce que dama am preuve si moom ay preuve maanaam moom moo bëgg bëggatul Nabou Dash bëggatu ko Nabou Dash ko bëgg mais bëggatu ko. Nabou Dash fi mu ne am na jëkkër waxtu. waaw waaw waaw mais nag. moo ko bëggoon encore une fois moo ko bëggoon mais encore une fois. Mm-hmm. def leen ay leeral est-ce que dëgg la loolu rek fa fa laa est-ce que dëgg la. mariage Nabou Dash est-ce que dëgg la. parce man parce man buzz internet yi. man lu ne lu man internet man duma leen gëm. man buzz internet man du man du ma la seetaan sax. d'accord d'accord Mbaye comme dañuy tëj parenthèse ba nga xamante ne ubbi woon nañu ko muy mariage ki nga xamante ni mooy Nabou Dash dama lan moo jàpp lan la jàpp ne moom mooy secret ki nga xamante ni mooy Nabou boo xamante ni nekkul si xale jigéen yi ba tax moom li muy marié juróom bi mooy juróomeelu yoon te jigéen yaa ngi fii toog puusuñu paasuñu mais dégg ngeen indi na si loo xamante ni xëy na ñun sénégalais yi sax am nañu si bëri ñoo xamante ne xamuñu ko woon parce que moom nee na xaritu Moussé Fall la jege na ko lool loolu tamit daf ciy baax yenn saay Euh, beneen point rek mbay gis nañu sa relation ak ki nga xamante ni mooy Wally Seck gis nañu sa relation euh, ki nga xamante ni mooy euh, nu mu tuddati sax këccëb nga xam ne ci Pape Diouf la nekk gis nañu sa relation ak ñi nga xamante ni ñooy waa suba teel ñooñu ñëpp gis nañ ne maanaam du ma ne sax du ñu laale mais maanaam concurrence dafa am seen diggante mais gis nañ ne yow da ngay jaabante fu nekk est-ce que yow doo dem ba ñu teg la ko ne yow mi da ngay da nga ci ñi nga xamante ni dañuy jaxase artistes yi man. pour pour man damaa nekk nit koo xamante ne du ma euh, du damaa nekk nit ku ku sérieux sérieux pas de sérieux si li may liggéey sérieux wu ma si mm-hmm. mais sama vie privée dama see sérieux bokk ñàkk ma xam naa li ma bëgg mm-hmm. moo tax du ngeen ma gis fu bëri man li may dem boîte bëriwul ma dem boîte kenn mm-hmm. waaw artiste yi man dama naan sax bëgguma artiste waaw man relation moo ma gën a neex di fësal comprendre mm. mataar sama xarit la mataar Diop suba teel sama xarit la mm. ku baax a ngoogu ku mën a def lu baax a ngoogu parce que Sénégal dañoo bëggul jàmbaar mm. Sénégal dañoo bëgg ku mel ne mataar suba teel dañ ko war a yëkkati comprendre nga parce que mi ngi def lu baax mu ngi mi ngi dajale ay xale di leen jox di leen di leen di leen di leen di leen ménager di leen jox xaalis ñuy liggéey comprendre nga lu mat fukki nit sax mi ngi leen di jox di leen di leen jox ñuy jox seen yaay. comme Matar Diop Subatel sa xarit la problème bi mm. temps yi bëri na digganteem ak nga xamante ni mooy Sidi Diop. Mm. Umaru ak ñoom ñëpp naka nga gisee problème boobu. Mm, da nga bokk ci waa Subatel. est-ce que mën nga si indi non bokkuma Subatel Matar sama xarit la mais. bokkuma Matar sa xarit. Matar mooy sama xarit ak Këcëb. Mm-hmm. ñooy sama xarit ay Magor ay ko sax man bu xaw ma sax la la. xamoo ci dara waaw parce en tout cas A benn lañ Sidi. Matar benn lañ. Omaro ak Matar Subatel benn lañ kon ñaar foofu ku fay wax waxuloo xam. ñoom ñaar benn ñoom ñeent benn lañ. mais problème am na fa wala amu fa. waaw foofu gëmu gis ma problème. xam naa Omaro yaramam a tàngoon rek muy wax xam nga walla mm-hmm. mais ku sa yaram tàng nag da kay wax waaw parce que genre Omaro da ngeen kii parce xol lay xol lu am rek da koy day gaaw a ranger waaw kay parce que xol bay taa waaw lu am rek day kii parce que wax na dëgg. Mhm. comprendre nga. Mhm. wax na dëgg mais euh, man damaa damaa damaa yar sama bopp damaa yar sama làmmañ comprendre mhm. man kilifa yi ki may waxal. su ma moomul soo sama làmmañ kon écarté nañ ma bu yàgg lu bari am na lu bëri loo xamante ne dañ ma ko doon dañ koy wax te soo demee ba si biir du dëgg. comprendre nañ naan. mbay ñoo kii fi am na ñoo xam ne man du ma dugg sama yoon nekk fu ma toog sama wax bopp laa fay wax. Mm. du ma tudd kenn man téléphone sax soo ma woowee tudd turu jàmbur dama la coupé. comprendre nga sama message du ma la jëm parce que. après kon ci ñi nga xam ne dañuy dem tay si waa Subatel. Mm. ne ko mm-hmm. waali nee na nii mm-hmm. waali def na nii uh-huh. waali génnee na nii. dem tamit ci ki nga xamante ni mm-hmm. mooy këccëb nga xam ne Pape Diouf lay àndal ne ko uh, Sidi nee na nii wala waali nee na ko nii maanaam jaxase boobu nga xamante ni am na ñoo xam ne ñu ngi koy def ci biir artiste yow. bokkoo ci man non non man. Euh, damay lay Ketchup xam lan moo tax ma jàpp ko. Mm-hmm. Ketchup du mer. Ketchup dafa baax Ketchup day day day koo xamante ne nit day woo day day day ñëw ne kaay si birandoor mu teral la. Mm-hmm. kooku ku baax koy def. dëgg la kaay mu yóbbu la si Matar Juba suba teel moom kaay mu yóbbu la Pape Diouf. Mm-hmm. di di di boole ay nit. loolu kooku nit ku baax koy def Ketchup naa la xamal leen de. dafa mën far dafa mën nitam. dafa mën nitam moo tax nitam kenn du ko laal. man tamit sama nit kenn du ko laal mais nag ñëpp suma sañoon ñu doon benn. sa diggante ak Wally Seck. sama diggante ak Wally dama ko bëgg. Wally man li may defal sax artiste yi ma ko defal waaye daf may may xaalis. Hmm. comprendre nga dafa dafa da lay sagal. comprendre nga waaye da lay waaw da lay sagal. yëkkati waaw da lay sagal fu mu la tegal da lay sagal. du la toroxal. Hmm. comprendre loolu nit ku nit ku baax la. Hmm. nit ku baax koy def. comprendre nga même soo soo dul gis du ma gisanteeg moom chaque jour. bala ñuy gisante day yàgg mais yéen a gisante. waaw mais dañuy gisante waaw yenn saa ñu mbëkkante sama kër te fi ñuy fi muy daje samay nit a fay nekk man mënumaa bañ Waly Seck. Mhm. te Waly nitu Aziz Ndiaye la. Mhm. Waly nitu Baye la. Mhm. Ba Waly nitu Ndiogu Mbaye la. Waly nitu euh, Samba Ken la. Waly samay nit ay nitam lañ ma koy bañ non c'est faux. comprendre ko su soo ko bañee ko naa fekk ngay doon moo tax ma il faut ma bëgg ko comprendre nga. Matar nitu këcëb la. nitu Pape Diouf la te ñooñu samay nit lañ kon dama koy bëgg comprendre nga. Mm. waaw mënumaa bu bañ njaga bëgg waali ba bañ njaga euro njaga sama xarit la comprendre nga. Mm. waaw ñoom ñëpp samay nit lañ mu bëgguma foofu ay réeru di fa am dafa bëgg ñëpp di nekk benn waaw soo bi sax dafa baaxoo coow. waaw parce que mm-hmm. su su amul coow yéen du ngeen du ngeen liggéey gars yi duñu liggéey ñëpp duñu liggéey dafa bëgg war gars yi du war a kii mais mm-hmm. si suuf ku fay wax wax fa lu rafet parce que suuf mm-hmm. ñu ngi déggante ñu ngi def lépp comprendre nga mais ñu ngi dégg ñoom ñëpp a ngi déggante a comme ñaaxarañ comme ñaaxarañ euh, euh, ak aadamoo dóor fee aadamoo ñaax ñaa bi muy ñëw si Adamo ñaa bi muy ñëw si bi bi muy nekk ak Wally boobu kenn xamul Adamo foofu dama ko fay jox leçon ñaari nit ñoo xamante ne bi ñuy ànd ñaar nit ñoo xam ne du ñu ànd dafa yàgg wala aadama laa jox leçon foofu dafa waroon a wax wax ju teey comprendre woo su wax dugg parce dafa xëy gis aad ñaa ak kii ak ak waali mhm. comprendre nga lu ndaw bëgg war war foo war sax dugg mhm. parce que loolu jaxase lay doon mhm. comprendre lépp lu am jax jaxase man mbay bëgguma est-ce que nekkul xëy na tamit bëgg-bëggam moo ëpp ba moo tax xëy na non non bëgg-bëggam lu mu bëgg-bëgg sax war war faru wax parce que nit kenn du ko toroxal nit kenn ñaa ku baax la ñaan xol bu dafa rafet lu mu am da ko war a am waa ñaa lu mu am dafa ko war a am ba pare ñaa dafa mën nit nitam te Sénégal nañ bàyyi gaay yu baax yi yàq comprendre nga

parce que comprendre nga dañ ko war a dooleel. parce que mi ngi waaw mi ngi commencé mi koo xamante nit koo xamante ne day créer ay employé indi fi diwlin boo xamante ne jël na fukki nit sax di leen liggéeyloo. Mm. indi fi war ga war ga boo xamante ne fukki nit ñu ngi koy liggéey comprendre nga di créer ay employé di tëgg ay làmbu comprendre nga di tëgg di jaay indi fi ay oto pour euh, pourtant demul demul demul demul demul Maroc di ko def dafa def. demul def demul def biir dëkkam kon kenn koo kenn waru koo galgal. Mm. asi ko war a may doole xeex moom non dañ ko dañ Sénégal fii bëgguñu jàmbaar comprendre nga bëgg yow mii soo jékki-jékkoon li ñu lay gis nii du bëri woo coow mais soo commencé woon am tuuti dawal oto ñu commencé wax nag sàcc nga da ngay càkkatu fii nga il faut nga am ko mm-hmm. parce que Sénégal ñoo bëggul jàmbaar Aziz Aziz dañ ko Aziz nañ ko bàyyi sama dama Sénégal surtout Macky Sall mm-hmm. genre yu mel Aziz Ndiaye nañ leen teg loxo ñooñu dañ leen a war teg loxo parce que seen alal lekkuñu ko ñoom kase dañ koy séddale mhm. comprendre dañ koy séddale ñëpp ñëpp Aziz Tabak si jotee mu jox ñëpp xar comprendre nga Aziz Ndiaye ak Baye Ndiaye Baye Ndiaye ak ñooñu waali sax suñ ko mënalul dara mhm. waali dañ ko mënul dara rek mais lu leen def nañ ko ko mhm. xam nga dañ leen gën a am ñaan rek lu leen def nañ ko ko pour bëgg kaw daaneel nañ bàyyi nit ñu baax ñuy yàq comprendre nañ bàyyi nit ñi ñu baax ku fi am ku fi am créé fukki employé comprendre nañ leen jox comme yow sa borom site bi nañ ko nañ leen may doole. waaw kay nañ leen may doole ñi am di di yéene nañ leen may doole parce que Sénégal liggéey amatu fi comprendre nga képp ku ubbi site. comme naan ku ubbi sit jël ñeenti dañ leen a war a may doole waruñu leen yàq. d' accord ñu may ñëpp doole rawatina ñun ñun ñi nga xamante ni ay ndaw la nekk ci sit yi mais mm, kii euh, mbay fan yi dama dégg ci ay wooyu bay ñu ne sa combat ak ki nga xamante ni moo di Ouzin xam naa ne bu yàggul dara lee mu taxaw léegi yow yaa koy préparé wóolu nga sa bopp wala. kooku bàyyi nga ko xel du ma ko bàyyi xel du ma ko def xam naa dama koy dóor benn dóor ñu ñu yóbbu ko principal parce que tànk yi baaxul.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 jéggi jéggi siraat am benn mbeur bo xam ko waaw jéggi sirat mi nga xamanteni ni mbeur la waaw entraîné na amna dool xamna lu bax ci lamb ji mbay boko laaji <laughs> wala wala ñu jox mo ñang ma jox kom nañ ma jox ci gaay ma ciob len ay ay ay ay Roland Roland Roland jago mën na ko suma ko jox la ma ciob ñooñu la tolol doole nañ ma jox ñooñu ma jox len ma ciob len barke Roland Karim doo mbër nañ ma jox ñooñu ma ciob len do mbeur barke Roland Karim doo mbër nañ ma jox Roland jago ma ciob ko artiste comédien nga do mbeur xamoo li nekk ci lamb ji ñom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 Dubaay laa koy defee préparation bi incha allah. Dubaay waaw Dubaay laa dem préparer ko parce que Griff Sougou dina ma incha allah moom may paasal ma dem ent def def entraînement bi foofu. pare nga nii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 cœur du euh, artiste euh, comédien aussi muy ki nga xamante ni moo di Yaa Awa muy accident bi nga xamante ni dal na ko muy sa naataango comme ni ma ko mën a waxee tey lan nga ñu si mën a wax balaa ah, dañuy déggante yenn saay rek mhm. yëkkati micro bi tuuti dañuy déggante yenn saay rek mais mhm. kiiwuñu miinante wuñu waaw miinante wuñu mais maa ku baax la nag mhm. ku baax la dañuy wax yenn saay ñu waxtaan ay 2 minutes 3 minutes coupé mais duñu yaatal normal mais ku baax la parce Euh, dama koy dañuy tase lu bëri. suba teel waaw ku baax la parce que euh, mënu waruma. loo xamante ne waaw loo xamante ne mën naa kaa wax si moom waaw mm-hmm. kay kon ku baax la daal parce que sekk nañ jàmm ak salaam. Mm-hmm. Ah, surtout. waa Subateel bi muy fréquenté ñooñu samay nit lañ. Mm. waa Subateel samay nit lañ waaw ñu baax lañ parce yaatal nañ moom su demee dañuy ree. d'accord est bi mbir mi amee déggante nga ak yaa awa wala. déggante non ak moom dégg naa ko si internet mais xam nga waxu internet man du ma si basé bu trop. il faut ma jot nit ki ba pare. Mm-hmm. doo koy kii même lu samay nit nii su ma gisee benn affaire bu. nekk nii suñ may woo naan ko sa nit ki sa nit ki. Mm-hmm. du la woo il faut ma dem woo ko. ba jot ko doo koy xam information mais du ma jékki tëll rek nar a jax. d' accord comme yaa awa yaakaar naa ne mbir mi bi mu amee. presque les mot une semaine euh, sa yaa awa la comme ni nga ko waxee miinante wu leen bu baax. Mm. waaye da ngeen di daje fi nga xamante ni mooy subateel lan moo tax boobu ba léegi mbay yëkkati woo sa téléphone woo ko. wala nga doxantu ba këram nga laajte dem dem dem xool moom ci lan la nekk wër gu yaram moom ci lan la nekk. ki ma ko ki ma tax ñu miinante. Mm-hmm. Babacar Babacar diaspora moo tax ñu miinante. Mm-hmm. Babacar ne ma yaa aw dëgg la. Mm-hmm. mën naa xam naa ko waxu la ci dara waxuma si dara kon damay topp ne rimal la rek comprendre nga. Mm-hmm. mais baf si defe naa moo ko njëkk a bind. Mm-hmm. mais biñ dégg dama koy fàtte laaj tax ne ko. moom moo ko njëkk a bind kon kay xam nga ne information bi mu joxe bu wër la. kon su amee daal kooku baax la ku dara war koo jot. waaw dara war koo jot. ku ku baax la may dégg kuy kuy kuy kuy góorgóorlu daal. Mm-hmm. est-ce que di nga ko wax wala di ko seeti wala. ah <laughs> naa ko woo incha allah xool ndax dëgg la. Mm-hmm. Ah, ah, information boobu. lu ah. wër la bu dee loo xamante ne lu mm. wër la sax it nga ñaanal ko xam ne yéen. waaw man ñaanal bokk milieu bi te xamante ngeen aussi. non bokku bokkuñu sax milieu bi parce que man. sama milieu bopp laa yor waaw sama artiste euh, man. ñooñu man sama liggéey sama côté rek laay topp quoi. man da ngay sa côté ñoom ñu xumbal seen côté mais ñoom ñëpp maanaam euh, maanaam milieu bi milieu benn milieu la. Ah, ah. ñii def théâtre ak ñii def comédie ak journaliste ak ñooñu ñëpp ñoo bokk milieu. Ah, tey ku si am lu la metti keneen ki da lay dem nemmeeku ba xool waxam. waaw parce que non non kii wu ma kii wu ma toll man su ma amee sama naqar man kese maa koy dund kay ñoom duñ ma woo. ah déedéet déedéet loolu moom kon ku nekk da ngay toll foo xamante ne foofu fu sa waay toll man ñooñu du samay naataangoo man ay kilifa ñooy sama naataangoo su ma amee problème ay kilifa ñoom ñoomay merci <laughs> ñoomay ñoomay woo waaw ay kilifa ñoomay man euh, man je je pas de bot kii trop les gens là waaw j'ai les gens ay tiktokeur yooyu yoo xamante ne mën ñu la jëlal yóbbu fenn waaw man du ma kii daal man taluma ñooñu quoi man fi mu nekk nii ku ma xamante ne business laa tal quoi koo xamante ne su ma waxee moom benn 20 minutes mu génneel ma loo xamante ne mën na hmm? mën na 20 minutes Euh, vingt mille euh, xaw ma vingt mille yooyu laay ñooñu laay gën a am contact quoi foo xamante ne dinañ ma comme am ku mel ne Bamba Alizé maanaam maanaam maanaam man daal su ma déggee ci say biir wax maanaam foo xamante ni sa poste dina fa waaw kay yooyu waaw ah, ah, mais pas ngay woo koo xamante ne mënu laa jëriñ dara ko koo xamante ne mënu laa conseil dara comprendre nga koo xamante ne mënu laa apporter dara sa àdduna jarul ngay concentré apporter dara sa àdduna non non mais parce que man damaa xam fu ma yem ko man dama nit nekk nit koo xamante ne man comme ma woo am Bamba ne ko lii ak lii ak lii Bamba woo ma ne ma lii ak lii ñu changé comprendre nga. Mhm. mu xelal ma xel ko wala mu mu ne ma fee soo fa demee dinga am dara wala feneen ma ay kilifa daal man laa jaxasoo laa gën a jaxasoo ko ay ñi nga xam ne si internet lañ basé woog ay si xam ne mënuma du question xeeb nag mais ah bëgguma daal waaw waaw bëgguma. Ah, waaw baax na d'accord mbay ñu bàyyi la nga tàggatoo. élection yi dimanche la yow kañ ngay voté. man. Euh, man daal euh, fi nekk nii man Marème Faye sama waay la. Marème Faye Sall waaw Marème Faye Sall sama xarit la. Pawlish nag démb jujoon nga ma ko si biir i wax neewoon nga ma su may faral Macky Sall yow mbay Pawlish ngay faral kee <laughs> <laughs> ngay faral. non non Marème ngay faral non non Marème démb Pawlish dafa faral président Macky Sall. défendre man lay toppandoo sénégalais yëpp lay toppandoo. tey ma xëy ñëw ci yow. Eh, eh, eh, bi ma commencé wax bi ma wax après naa la invité bi ma commencé wax wax élection sax amagul. di wax si Macky Sall lu baax Macky Sall bi ma naan ko bërki keroog damaa dem damaa dem dama doon dem ci taxaw si stade bi. ay xaaju guddi ay xaaju guddi comprendre nga taxaw di ñaanal Macky Sall loolu bi ma koy wax kenn kenn wax ko. stade bi mu paree ba suba si damaa dem dem foofu ay 4 heures du matin taxaw jaan romb na ma lépp romb na ma ma taxaw rek di ñaanal Macky Sall barki Alxuraan comme naa leen Macky Sall yàlla Sénégal yi africain. jaan gi fu mu la romb. waaw yow taxaw jul di taxaw Cheikh borom sama benn xarit moo ma doon yóbbu Cheikh. Ah. Géejawaay moom ma doon yóbbu Thiès ma taxaw ne Thiès may ma ay ma ne ko Cheikh. may ma fii. ay yan heure ay 3 heures du matin ma taxaw si àll bi foofu. Mhm. kenn newu foofu may ñaanal Macky Sall naan koy Macky Sall yàlla nga gudd fan. Mhm. Macky Sall yàlla nga am teraanga Macky Sall sa la ko nar a ah, la wax démb. waaw non non non non non ku ko ko nar a xañ. yàlla na ma leer. yàlla àdduna tukki mm, ma ko diggantewu ma moom moom c' est que man lay toppoon man lay topp Pablis ne man moom sama compte yëpp la Pablis abonné te di ma suivre complètement sax lay lekkee fi may añee sax lay man kooku dafa ma topp trop. tey bu fi jooy de mbay. non dafa ma topp ma kan xoolal faralal Macky Sall rek moom mu faral ba xam mu te bu fi jooy. xoolal keroog laa dem ci ci benn bitik. ah. waaw 2000 kooku ñu ko ma esat nekk def dem na fa kooku ne ma Fawally Sène fii taw man man lan moo may toppee lan la may toppee man laa xamul. lan la may toppee léegi bu demee si Macky nga dem ci Marème. bu boobaa jubóo dina am seen diggante mu gën a taxal seen diggante Marème Faye kooku baax la parce que mooy yaayu xale yi ku am lu ko metti so fi mu nekk nii ku feebar mu jël la en charge. Mm-hmm. man kooku laay waxal parce que mi ngi def social man gisaguma kenn ku def social si si si si si si kii te Marème Faye mi ngi def social président Macky Sall mi ngi def social man gisaguma kenn ku kenn kenn ku def social waaw. wax dëgg yàlla. d'accord nag. mbay tàggatoo li ñu cëraloon ci waxtu ji. di nuyu ñëpp di nuyu àdduna ñi ma bëgg ak ñi ma bañ ak ñi may saaga ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu. ñi lay saaga waaw surtout ñi may saaga maa ngi leen jox ñoo di laa bëgg ñi may saaga. Mm. ñoom ñi laa bëgg si Sénégal. dëgg la waaw saaga du takk fenn. waaw ñi may saaga rek laa bëgg. Mm. may naa leen ko billaahi walaahi taalaay xanaa xamoon ñi may saaga dama leen a bëgg. Mm-hmm. billaahi dama leen a bëgg wër na yàlla dama leen bëgg maa ngi leen siyaare d' accord d' accord jërë ngeen jëf yaakaar naa ne nii lañ leen ko waxee woon tey nag ñu dalaloon ki nga xamante ne nii moo di euh, Mbaye ñu sew seet si ko këram mu defoon combat ak ki nga xamante ni moo di Pawlish Mbaye dégg ngeen nag waxtaan bi yaakaar naa ne neex na trop te xam naa ne tamit dina leen neex may jaajëfal sama caméraman bi sama doom bi nga xamante ne nii liggéey rek la xam jaamu yàlla sama taw bu góor bi ma lay jaajëfal bu baax a baax le grand caméraman le jinney caméraman ah di jaajëfal sama àndandoo bale may seen ci ruq ba faa ah borom wasaare moom borom moom wasaare fa luñ fa waxul baaxul ma koy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal nak mom tamit ki nga xamante ne ni biñ ñëwee ci kër gi dalal nañu muy Bamba Alisé xam naa ne tamit balaa maa dem dinaa mën a am ci Alice yeeg yooyu comme ma weer yi nuñ koy waxee Alisé <laughs> di bu baax a jox rendez-vous ba beneen yon incha allah ak si sa benn bu nice ah bàcc tamit maa ngi koy jaajëfal bu baax bàcc yaakaar naa ne nga ba tas ah ñun li lañ gis tey ngeen ko ay wax yi ki nga xamante ni moo di Mbaye Kouthia la yoon incha allah ak sama star ak beneen star jaajëf mën waa ku xam yoon waa ko gën daas bu nekk pexem waaye wasaare ba ngeen yuri ku ba léegi làqu leen boobu saakul tabaxoo ko tëkk mën na laa jafe wasaare TV xoolal bu baax boobu saakul tabaxoo ko toj ko mën na laa jafe Wassare TV xoolal bu baax moo tax na kenn du leen tee di dem ni naa leen macha allah da ngeen di dem ni naa leen macha allah da ngeen di dem ni naa leen macha allah di dem